waaw man Baye Ndiogou grand la si man comprendre di mag di frère di lépp ci man waaw doomam Cheikh Kouyaté moo ko suma rakk bi ma bokk ndey ak nooy ànd comprendre man sama rakk mooy Cheikh Gaye waaw presque ñoom ñaar la yàlla boole waaw mooy complice am moom Cheikh Kouyaté mooy Cheikh Gaye mooy sama rakk. waaw kàddu yu may seede si grand bi waaw du ma du ma jafe man rakk laa si ñoom ñoom na mag fuuf tout récemment rek. am na benn groupe panel bu ñuy wax ASC Djibo équipe bu Pape Baye Ndiouga joué Pape Cheikh Kouyaté man maa ko créé def benn retrouvaille boo xam ne waaw parce que am nay ay cent quelques personnes si groupe bi maa ko créé kon xëy na xam naa leen ma nekkoon seen rakk nag seen biir ma yab leen miin leen ñu jox ma cër waaw Baye Ndiouga nekkoon grand boo xamante ni grand bu baax grand bu bien grand bu amoon rigueur si lu muy def li nga bu muy joué ASC Djibo day saaga ay adversaire day saaga ay partenaire am ndax bañkat xam nga di nga nekk terrain di saaga sax nga naan ki fekk da ngay bañ defet waa dafa bañoon defet bëggul woon defet moom tey nu gañe ko waaw am defet xeex ak ay ay ay ay ay ay ay doomu ndayam si terrain def koon muy dara moo dax si interview am des fois doon wax sa Cheikh Kouyaté maa ko fit waaw Cheikh maa ko gën tàng maa ko fit parce que xadar gu mu amoon la mais loolu si biir terrain la mais door terrain nit gënu ko nit gënu ko nit gënu ko démb rek maa ngi koy expliqué si benn site gis nga bu Cheikhou jógee kaaw ni vacance ba ñëw billaahi boo ñëwee bu toogee si buntu kër gi danaa la dugal dama nga jëli sa wàll waaw si oyofam si baaxam mais par rapport nag ak bu nekkoon si terrain beneen nit lay doon waaw et xam nga def soldaar waaw affaire jikko soldaar fi nekkoon ci moom waaw comme ni ma suma grand bi waxee sànq rek waaw moom góol la njëkk a def waaw góol na fubal na waaw moom daal yàlla mayoon lu bëri quoi si terrain waaw tiis bi comme comme comme ni muy waaw gannaaw bu ñu santee borom bi waaw daf ñuy metti mais dañuy xamante ni waaw jaam lay dal waaw dafa bokk si ñun yàlla daf ñu moo ñaale loolu waaw yàlla daf ñu mooy fii kenn dëkk fi waaw te Cheikh Kouyaté wane na ko wane na ko démb am na ñu fi ñëwoon naan est-ce que moom du manoo ma ne ko tey Cheikh bu ñëwoon tey mooy defal nit ñi te ça se voit waaw nu nekkoon ne kër goo xam ne kër gu am diine waaw am alxuraan am lépp ñoom seen kër diine la alxuraan la ñu xam moo tax Cheikh même bu ñëwee vacances sax waaw booy def moom bokku si bokku si tey feeñ na tey feeñ na ba pour pour tiis bi ma ñun ñun ay julit ñun ay julit lañu waaw tiis du dal lu dul waaw doom aadama waaw ay doomu aadama lañu tiis dal lu doomu aadama kon nu tiis ñëwee rek waaw dañ koy gérer maîtriser ko te amul loolu problème boobu si Cheikh Kouyaté ku xam Cheikhou rek si dal nga koy xamee si teey ak maîtrise waaw yow xam nga li ma am na yoo xam fa yegg tey Cheikhou bu fekkoon amul gëm-gëm waaw kenn waxatu ko sax waaw ba si sport bu muy yëngu nii ba mu woon gëm-gëm xam ni yàlla mooy joxe waaw kon du yegg si fii waaw bu dee mandat moo tax ma la ñoom kër diine lañ bokk tey boo amee diine waaw yéen yi du la jaaxal du la impressionné waaw di leen kii mooy sunu président ASC Djibo en même temps nekk directeur ville la Dakar waaw moom tamit rakkal si Pape baay Ndiogou moom a gën a xam sax li may wax nii parce que moom pratiqué na si gàlle bi waaw bëggoon naa tam